Kébé mbokk dal leen ak jàmm ñu ànd ak yéen yëri li mboole yéen kaay xëy dëxañ ci seen xët wu njëkk ñu door ko ak journal bi di Le Soleil yéen kaay journal bi daal xam xamle ni gouvernement bu Sénégal dina yulli ci gafakam fukki milliards ci suñu koppar daal di koy jagleel opérateur yi nga xam ne ñooy ñoo yëngu ci lu jëm ci lépp loo xamante ne askan wi dañu koy dundee moo xam semence yi nekk ci wàllum pomme de terre journal bi daal di xamle ni rek bu ñu deful nank nag daañu dakkal exportation bi ñeel wàllum gerte gi ñu jàpp ko fukki fan ak juróom ci weeru novembre journal bi di levé yéen kaay daal di koy dëggal xam le ni rek exportation ñel wàllum gerte gi daat nañ koy dakkal l'informateur indiwaat ab nataal indi ab soxna mu tiim ab gerte journal bi daal di xam le ni rek ñi nga xamante ni ñooy chinois yi seen mbappat jëm ci wàllum gerte gi daat nañ koy dakkal journal bi daal di xam le ni campagne arachidière bu atum 2024 2025 bu ñu deful nank nag gouvernement bu Sénégal jël na ay matuwaay euh, si du quotidien dëggal li ni mel indi kàddu ñiiti réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye xam le ni rek nguurum Sénégal am mbébét daal dugal ci wàllum gerte gi bokk na ci bu ñu ko xaymaa ci wàllum koppar toll na ci téeméer ak ñaar fukk ak milliards ci suñu koppar journal bi daal di xam le ni lu ñeel wàllum campagne de commercialisation bi ñeel wàllum gerte gi gouvernement bi beneen doxalin la ci bëgg ginnaaw ba ñu suspendre lu ñeel wàllum exportation ci wàllum gerte gi les échos yéenekaay yi indi ab xibaar xam le ni rek ki nga xamante ni mooy maître Malal Bari daal nañ koy suspendre par l'ordre des avocats bi ni mel nag ana lan moo ko waral ana lan teg ci ndoddam lépp nag mi ngi bàyyi ko ci ay client am te bu ñu deful nàkk-nàkk ab radiation sax mën na koo fekk ca la nga xam ne ca la nekkoon di yëngatu avocat bi ni mel di maître Malal Bari ma teg fi les échos yéen a kaay dem yëri Vox Populi bi nag daal di ñëw ci accident bi nga xam ne amoon na niki démb journal bi daal di dëxañ ci xëtam bu njëkk lenn ci ay kàddoom mu xam leen rek ab pick bu waa Pastef bu Mbàkke di doon campagne niki démb nag moo renversé wu benn nit moo ci ñàkk bakkanam lu tolloo ko fukk ak ñeenti doomi aadama jëlee ci ay gaañu gaañu ñu bari ci ñoom nag daat nañ leen di ci bërëbu fajukaay yi élection yi ñu dëkk ma ñu jàpp ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre las indi nataalu tête de liste bi di sàmm sa kàddu Barthélemy Toye Dias journal daal di xamle ni ñoom waa coalition sàmm sa kàddu ña nga yëkkati ay promesse di ko jagleel askanu Sénégal bokk na ci daal di criminaliser li nga xamante ni moo jëm ci borom ñaari tur yi journal bi daal di xamle ni lii nag doon na loo xamante ni ñoom waa sàmm sa kàddu bokk na ci li ñu mbébét euh, journal bi di source a daat nay xamle ni Pastef bu Mbàkke nag daal di nay dakkal ay campagne am ginnaaw ba nga xamante ni ab l'accident daat nay am benn nit ñàkk ci bakkanam yaram journal bi daal di xamle ni xale bi nga xam ni moo ñàkk bakkanam ci accident bi ni mel daat nay wuyoo ci turu Modou Tall ñëpp xam ko ci parti bi di Pastef mu nekkoon benn fervent militant bu yàgg a wane boppam Ousmane Sonko njiital Pastef ma ngay waneeti boppam ñu dem yëri journal bi di yor yor muy indi ab nataalam moom njiital Pastef daat nay yëkkati ay kàddu loolu la journal bi di yor yor dëxëñ ci xëtam bu njëkk journal bi daat nay xamle ni lenn ci ay mesures yoo xamante ni bëgg na ko def ci wàllum càmm gi ak ci wàllum mbay mi mi ngi ko xamle ci diwaanu Fuuta mu fekk opinion yooyu réew mi quotidien indi lenn ci kàddu coalition sàmm sa kàddu journal bi daal di xamle ni rek lu jëm ci wàllum criminaliser borom ñaari tur yi jamono yi nag daanaka moom la ñu jël def kap arme di ko campagne Euh, keneen ku war a campagne boobu ba léegi ñu koy xaar kenn gisagu ko moom la journal bi di l'Indépendant dëxañ ci xëtam bu njëkk ñu dem yëri journal bi journal bi nag daat nay indi ab nataal moom Sall Ngaari euh, njiitu réew bu Sénégal bi woon journal bi daat nay xam leen rek moom nag daat nay setal boppam ginnaaw fukkiyaat ak ñaar yi nga xam ne nekk na ko ci bopp réewum Sénégal journal bi daat nay xam leen ni moom président Macky Sall nag daanaka nag euh, setal na boppam ba mu set daal di rafetlu jéego bi nga xamante ni def na ko ci réewum Sénégal mu jaarale ko ci plan Sénégal émergent bilan bi nga xamante ni def na ko ci wàllum dem bi ak dikk bi daanaka fépp foo ci jël moom président Macky Sall wax na ne la mu fa def amul benn njiitu bu ko fi def. le témoin quotidien indiwaat ab nataalam muy dëggal yile le muy xam leen rek moom président Macky Sall daanaka nag ragg na boppam ba mu set ci tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci ndoddam. la tribune yéen a kaay indi seenub nataal président Macky Sall élimaanu jëwriñ yi di Sonko nekk njiital Pastef journal bi daat nay xam ni moom président Macky na yéene taxawal ko defee rek ñu mën a tamax réew mi euh, point actu daal di xam le ni rek ana ñu doon wax naan président Macky Sall dafa daw moom président Macky Sall nag ni ki na tey xam le ni rek engagé na ab bataille bu am solo jëm ci wàllum démocratie ak lépp loo xamante ni jàpp na ni mën na cee tamax réew mi euh, journal bi di point actu Actu daal di xamle ni moom président Macky Sall nag daat nay ñëwaat ci fukki at ak ñaar yi nga xam ni def na ko ci bopp réewum Sénégal jéego yi nga xam ni def na ko ci ak lépp loo xamante ni mébatoon na ko ngir def ko ci réewum Sénégal kaddu yoo mu yëkkati jagleel ko askanu Sénégal le journal bi di l'observateur dëxëñ ci xatam bu njëkk indiwaat ab nataalam journal bi daal di xam le ni Sall Ngaar yëkkati na ay kaddu jagleel ko askanu Sénégal mu xam ne rek na mu ko bindee na mu ko waxee ak la mu dëxëñ ca lettre ba loolu lépp le journal bi dëxëñ ci xatam bu njëkk xam le ni moom président Macky Sall daanaka nag daat nay jaare ab mbébétam rawatina li mu def ci réewum Sénégal ci ab bataaxal bu mu jagleel askanu Sénégal moo tax journal bi di Les Échos yéen a kaay daal di koy dëggal xam le ni njiitu réew ba woon président Macky Sall daal di nay massacré kii di Ousmane Sonko du samay kaddu kaddu journal bi di Les Échos yéen a la. enquête quotidien daal di indiwaat ay kàddoom xam le ni moom njiiti réew ba woon président Macky Sall jamono yi daat na yëkkati ay kàddu tekk ci régime bu bees bi nga xamante ni moo nekk ci réew mi jamono yi euh, xam le rek lii di populisme ak autoritarisme daanaka jamono yi moo nekk ci réew mi di menacer wàllum démocratie président Macky Sall ay kàddoom ba tey daat nay xam le rek lu mu bëgg rek mooy tegaat fi loo xamante ni dina mën a dëgëral li nga xam ni moo nekk ci tëslaayu réew mi di ay institution euh, kàddu yu mu yëkkati Walf Quotidien daal di koy jàppee ab de liste takku wàllu bii mi ngi koy def jamono yi ndax journal bi ana la moo tax mu wax li ni mel bokk na ci nag moom président Macky Sall ñëpp ñu ngi ko doon xaar kenn gisu ko journal bi daan na ci yokk rek ni jamono yi ab faible mobilisation dëgg nag moo am ci coalition takk wàllu bi nga xamante ni moom la jiite. Euh, ki fi jiite woon ministère des finances Mamadou Moustapha Ba journal bi di li quotidien moom la dëxañ ci xëtam wu njëkk Mamadou Moustapha Ba wuy ji boromam atum 2024 mi ngi judd ci atum 1965 jëwriñ ji woon Mamadou Moustapha Ba journal bi daal di xam le rek yëkkati nañu ay kaddu yu seede daal di koy jagleel jëmm ji bokk na ci semga di Mbaye Cissé kaddu ya mu yëkkati président Macky Sall Guy Marius Sagna ba ci Pape ñoom ñëpp yëkkati nañu ay kaddu yu rafet jagleel ko Mamadou Moustapha Ba ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni def na ko ci bopp ministère ministère des rawatina jéego yi nga xamante ni def na ko ci wàllum koom mu nekkoon koo xam ni ba mu demee ci assemblée nationale ñëpp ko jaajëfal tatagal ko daal di koy tàccu ndax liggéey bu rafet bi nga xam ni def na ko ci bopp réewum Sénégal mu nekk kenn dootul fàtte ci taarixu réew mi ndax li mu liggéey ci réew mu Sénégal ñu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla xaare aljana firdawsi bu ko defee soxna ma jigéen nga tëj